chers internautes yu Enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé ko ak Sud Quotidien mi delluwaat ba assemblée ki démb la ñu jël lépp luy pouvoir jëm ci mesure d'urgence yi ñeel mbas bi di covid jébbal ko président de la république yéenekaay bi ne Macky Sall jamono ji yor na lépp loo xamante ne ni pouvoir la ngir di mën jël sañ-sañ te na mu gaawee daar daar Enquête yéenekaay ne moo ci des jamono ji Macky li mu soxla woon am bi bu ko neexee def ko fukki fan ak ñaar la amoon waaye jamono ji jox nañ ko lépp luy sañ

ngir mën a dogal ay mesures yoo xamante ne nii ci daar daar lañ ko soxla waaye nag bu kenn xalaat ne dina laal constitution bi ñuy wax dañuy wax rek wante Macky loxoom jotul ci constitution bi réew mi quotidien ne en tout cas yi nga xamante ni ñoo yëngatu ci wàllu droit de l'homme ñoom d'accorduñu ci sañ-sañ gi nga xamante ne nii jox nañ ko Macky Sall la ni yéen kay di ko dëggal ne waarado ak Amnesty International ñaawlu nañu loolu li am démb ci biir assemblée nationale tax nee nañu mbir yi forcing la Macky ci boppam moo loxo majorité bi ngir ñu modifier ko loi bi en tout cas niki démb Antoine Diome amul benn jafe-jafe ngir député yi mën ko dégg séance bi en huis clos lañ ko def député yu voté wax ji jeex tàkk yéenekaay bi di def alerte ci cabinet bi nga xamante ne di moom la ñu dénk wàllu fichier électoral bi Tachin Manga ci biir yéenekaay bi di xamle ni compétence yëpp dajaloowul ci cabinet bii ñu ooyee ERA Les Échos yéenekaay ne jaari sow mi ñuy wër ci diwaanu France niki démb am nañ ko ay xibaar yu yees yéenekaay bi ne presse France bi kay ñoom ñëpp jamono ji commencé nañu dugal seen loxo ci wër gi ñuy wër jaari sow ca biir réew ma yéenekaay bi di jo xamal ni brigade de répression de la délinquance à la personne ñoom la ñu dénk léegi mbiru nga xamante ni ñoom ca ba lañu ñu xamal àdduna bi yépp ma di jaari sow fa ñu ko mujjee gis mooy ci Toulouse la libération ñëw ci cën mu gën a yaatoo tey xam le ni dèjà ña waxoon ne jaari jaari sow fa gis ma di yu mujj yi enquête yi joxe moo di jaari sow mu nga ca Toulouse te buñ ko fa wëree dinañ ko gis yéenekaay bi dellusiwaat ci résultat yi nga xamante ni caméra de surveillance yi indi na ko waa police di ci indi ay xibaar consul bu Sénégal ca France di dalal xelu sénégalais yi ne ak lu mënti xew jaari sow moom jamono ji ñu xel dal na ci moom nekkul ci danger te autorité française yi rassuré nekkagul ci danger vox populi yi ubbi ci xët bu yaatu tey xamle ne ndeke jaari sow ca Toulouse la doon defee vacances nowelam yii Amadou Diallo nekk ca consul bu Paris di xamle ci biir yéenekaay bi ne autorités yi xamal nañ ne danger amagul ci jaari sow mii l'observateur ne attention de attention même bu fekkee ne jaari sow mii mu nga passé yi ca Toulouse amul benn information buy firnde ne jamono ji mu ca Toulouse ba léegi yéenekaay bi ne ni Jigéen Ndour ni ki démb ci quatrième édition on planet summit bi yéenekaay bi di jox xamal de Youssou da doon xalamal Macky Sall jàkkaarloo gi mu doon jàkkaarloog ñi ëpp doole ci àdduna bi ni ki démb Youssou Ndour ab morceau la génneel Macky Sall tey défendre nag ca biir morceau ba annulation dette africaine bii direct news ne en njaboot gi nga xamante nii yëkkati nañ leen ndax teer bii fi toll nii sës nañu la doon xaar depuis ñetti at ba léegi nii jotuñu ko yéenekaay bi a gaawee waaye ba lenn loo xamante ni askan bi gis nañu ko ci promesse yooyu nga xamante ne ni Macky Sall na leen ko yëkkati nañu leen séparé leen ak seeni famille dugal leen ci ay xët-xët ba léegi seeni solution amu ci li tax famille yooyu ñoom ñëpp booloo tey waajal nag def marche bu metti jublu palais jàkkaarloog Macky Sall mi wax ak moom directement lii la ñu nas ne APEX fi mu toll nii yëf yi ci moom la des bu ñu yëngatuwul wax ñu lu leer fii ay fan dinañu dox ba palais ci Sénégal